gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër suñu mbokku internet yi amaan mbégte contentement di waxtaan ak yéen li nga xamante ne moom mooy làmb te ñu ñëw écurie ñëw fekk ki nga xamante ni xale la champion la nekk ci yoonam muy Serigne Ndiaye bu Fass euh, ñu fas yéen waxtaan ak moom naam nag wax dëgg yàlla kon li ñuy wax rek temps bi gàtt na mais rien que pour rek joxe ay information ndax fan yi gis nañu sorte yi mu def Serigne Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax soxna si di la nuyu di la ziar bu baax. di nuyu waa écurie Fass ñu fekk suma entraîneur ku suma papa Tafa Gueye ak suma président écurie Père Abass Ndoye sumay entraîneur Père Gueye Gamara Père Seck Père Socé mhm. ak suñu nouveau entraîneur Père Abdou ak Père Kati di fa ñaan yan bi oyof lool di waa Medina gi ma juddoo yore fu màggee fa mhm. ak waa suma dëkk waa Ndiafat Séré Ndiafat Escale Ndiafat Socé ak soixante-quinze villages yi ko wër yëpp waa Ndar suma papa ak waa Golf xam nga waa Medina bu a mhm. lu yoon la ndakaaru ci biir ndakaaru rek ndax boo nee Fass Fass ci ndakaaru bokk. Mm-hmm. te mooy loolu lépp sot sek la rek. Mm-hmm. waaw di ñaan def jàmm bu mu nekk loo xamante ni lu réussir lay nekk total. Mm-hmm. xam waaw. mu nekk équipe boo xam te ni boole nañ ko mm-hmm. ñu gis ni yéen ñëpp presque am ngeen combat mm-hmm. combat yooyu nan ngeen koy waajee parce que sànq ñu ngi dégg perkat yi mm-hmm. mu ne dinañ def la maximum et le minimum parce que am na yenn yoo xam te ni ñu bari ñu ngi toog di seetaan pour xool équipe bi fu mu jëm mais tey ngay euh, préparé combat ak kemte moom mooy Sokocim mu nekk champion boo xam te ni def na def na fi lu ne naam nag am na ay année blanche yu mu tegle pourquoi tamit Sokocim parce que ñu bari dañ a moom estaf su ma papa a jaar fii teg baat soog si ma euh, mbër la athlète la comme yeneen athlète yi dafa dëgg yàlla mhm. ku ma jox cër la ku ma nawloo la champion la xam nga mhm. lamb moo ñu boole ñu war a bëri mhm. rek mooy loolu jeex na bi yàgg na ba mu taxawee yàgg na yàggul ndax Covid moom moo taxoon. waaw combat bi février la taxoon ñu war a bëri le juin. waaw en temps Covid bi ñëw après mooy loolu ñu jàppoon date le 5 juin. mooy loolu mu obligé yàqu moo mën a pareegul quoi. kan moo pareegul. moom si lu mu wax. soo ko sib moom moo pareegul. ci côté entraînement wala. waaw xaw ma ne ko de yàlla moom concerné ma a vraiment. Hmm. waaw mais Serigne Ndiaye moom ko gis xam ne pare na macha allah. non man moom wax dëgg yàlla man moom athlète la damay entraîné du jour au jour. Hmm. xaaruma combat xaaruma dara. Hmm. beneen bi mooy ñu gis lutte simple. yow moom franchement.

Serigne Ndiaye. waaw secret bi du moo mooy jàppale jaam jaam bi da koy sant yàlla xam ne compétition rek. Hmm. làmb boo boo degee da ngay hmm. euh, da ngeen a xaw a féex tuuti parce que dafa am koo xam te ne instant bi nekku ci muy rëg-rëg moo tax ngeen commencé xam nga féex di jaay surtout Serigne Ndiaye parce que rëg-rëg bu daan ñëw gars yi nee nañ ñu bari seen fit yi daan xaw dem mais Serigne Ndiaye tey li tax mu gën a mooy gis ci Reug rek ak ñeneen ñi ci gis moom ay doole leen di jaay mais pas mbër ndax nee gis nañ léegi affaire yi ni muy demee yéen da ngeen ñëw imposer doole bi lu waral loolu. waaw loolu dara compétition rek fi moom li nga war a jël danga koy jël loo war jël doo ko jël. dëgg ay ragal fii ku fi nekk ragal mbër bi tax nga am doo ragal. Mm-hmm. waaw parce que bu métier bi nekk ci àdduna bëri na. boo bàyyee lépp làmb rek heure yi nga jug di entraîner rek fi ngay dugg fi ngay génn génn ragal du ko def boo nekkee ragal du ko def si àdduna bàyyi nga toog. Mm-hmm. waaw loolu moom ay détails la quoi vraiment ku dëkku nekk li nga war a lekk ngay lekk xam di nuyu suma mbokk àll ci di leen baal àq di leen baal àq si julli gu ñu jógee. Mm-hmm. Serigne Ndiaye ñu gis ni ngay compétiré tey tey lutte simple bu amee par exemple benn dëkk. Mm-hmm. Serigne Ndiaye ñëw jël demaat beneen dëkk demaat beneen dëkk loolu noonu parfois tamit doo am doo leen am benn kii benn problème. loolu ay loolu ay catu la wala lan la ah non du catu sax mais non comme par exemple dañuy gis ni ngeen di compétir semaine bi. Mm. samedi dimanche mën naa am wala par exemple lundi euh, nekk fête. Mm. Euh, Serigne Ndiaye dem. Mm. dimanche samedi catu ma sax mais loolu noonu est ce que parfois tamit doo leen sonn. waaw non waaw da ngay sonn parce que entraînement rek en tout cas da ngay xëy entraîné lundi mardi mercredi jeudi genre contact nga xëy rek. parce que équipe da contact du lundi au vendredi da contact. parce que dimanche boo contacté itam du yàq dara ay athlètes lañ ñun ñoo choisir mbër nekk suñu métier. bu ñu neexoo a nekk menuisier wala nekk leneen leneen mais choisir dara lu moo ci xiir donc dañ koy jox axa bu ma sëkk ñoo tax ñu ñuy reyante suñu waa xam ne fi nga dégg lu ne. dafa metti yow mbër bi doo dégg dara parce que entraînement ngay coupé ñoo tëdd na la mais say am di jàmm say supporter say nit dañuy werante fu ñu toog werante nii naa ñooñu moo tax may reesam bopp man. Mhm. mais man ak man kese sama kër laay toog def sama ñaam. wax dëgg yàlla. yéen trois ngeen su ma juumul. Mhm. Serigne boo ko jëlu général jël ko catuma la nag gaa ko wax. yéen ñett mhm. ñu gis ni chaque jour tournure bi foofu lay deme lan moo waral loolu instant bi yéen yéen a téye affaire bi ko ah mais nga la yàlla suñu borom rek loo xaw ma ci dara yàlla suñu borom rek. instant bi yow ñan nga ci euh, ñan nga ci dajal lu baree bari. non daye moom ñu dañuy rek affaire compétition dañuy daje suñu biir wax yow yaa général Malika di ngeen daje bari non dañuy daje suñu biir ñëpp a daje suñu biir mhm. ñëpp a daje dañuy bëkkante suñu biir ñëpp mhm. a euh, la demee woon ak fan la woon hmm, samedi samedi demoon ñaning ñaning yaa ngi ñan ñeena fa nekkoon seet bëri woon nañu mbëra mais comme ñen ñoo kii finaliste bi yàkkan la woon man a benn booy bu tudd lacrymogène lacrymogène waaw mhm. di ko nuyu nag bu baax xam nga bu champion la mbër la macha allah mhm. di ko jégalu parce que am lu fa jotoon xew coowal ni kur Serigne Ndiaye da ko dóor dóoru ko man boo xoolee ni may comparé ak mbër yi man je suis pas Mm-hmm. man nag may daan ma jug encouragé la su la félicité la mm-hmm. man noonu lay doxee suma àdduna mm-hmm. waaw tout ma am mën naa ko bokk ak ñoom mais làmb des fois da ngay da ngay bëri bu pare gars yi critique bëri fu ne non da ko dóor ba da ko jaay dooj non du loolu ñun soxoruñu euh, cinq mille moo ñu boole wala trois mille moo ñu boole bu jeexee jeex na. xam boobu tam champion la mbër la macha allah. di ko ñaan moom carré bu rafet di ko nuyu bu baax a baax. ñaan ñoo fa ñooñu eh, moo ko tëggoon. Luc léegi après ba nga ñëwee Dakar tamit kat moo tëggoon. Dakar Sénégal xam nga ko mm-hmm. léegi après Serigne Ndiaye macha allah jël lépp ñu koy félicité bu baax baax. instant bi Serigne Ndiaye euh, lutte simple bi. Mm-hmm. yaa ngeeg ci moom ndax gis nañ sa gars parfois gars dañuy dem ba benn instant arrêté. Mm-hmm. est ce que day continuer rek. non man xam nga du yàlla man staff laa bu mu ma toog ma toog man entraînement daal laa géré xëy dem entraînement ngoon entraînement. man sama bopp loolu laa géré man le reste moom chef de l'état bi noo ko gisee sélection yi. sélection yi man soo ah xaw ma ji lu bëri na quoi vraiment. Hmm. xaw ma lu bëri waaw. mais woowu ñu la il paraît que ni sa kii moo. non non du question na woo sax xam affaire moom. Hmm. mooy loolu man daal sama encadrement laay dégloo ak yooyu daal bu ma nee acca man acca bu ma nee tool toog. Hmm. vraiment di la jaajëfal. Euh,

maa ngi koy sant bu baax di gërëm daf may jàppale xam nga ki mel ni Cheikh Ba jàppale Père Siri Samb daf may jàppale Seydou Gueye di leen ñaanal xam nga ak la mu faal di ko baax di nuyu suma gars yi may àndal nag ku suma grand frère petit xam nga ñoom ba Bada Ousseynou Mo Lamine Obala Mam Samba ak Baye Abdou Kabandoski maa ngi nuyu bu baax parce que affaire dafa métti am xam nga boo jug mbooloo ngay àndal da ngay nekk si ay jafe-jafe gars yi bàyyi seen yëpp xam nga di la ànd ak yow fu ne donc li la laa mën mooy di leen sant di leen gërëm di nuyu suma papa tabaak yéen bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak suma waa dëkk waa Njaafat séeréer Njaafat Escale Njaafat Bërut ak Njaafat Sos ak samson village ko yëpp di nuyu suma bu baax nag dox ñu dafa mu ñaan incha allah carrière bi nekk ci